ci kanamu àdduna yëpp ni réew mu mag la def nañu élection ci jàmm ak salaam ñu def élection yi ci anam yu metti ndax diir bi dafa gàttoo waaye def nañ ko ci jàmm coow yi bariwul sénégalais yi génn nañu tànn nañu wax nañu li mbir mi génneegum mooy Bassirou Diomaye Faye moom moo jiitu moom lañu ñu élire au premier tour félicité di ko ñaanal mu jik ko jik réew mi te yéen yi moom ci réew mi yàlla mottali mi moo ko tax moo moo ko tax jóg moo ñu taxoon a jóg may sant di gërëm ñii nga xam ni ñun ñoo séq langu politique bi moo xam ñi ma àndal la wala ñi nga xam ne dañ doon jongante nga xam ne mën nañu wax ni jongante bi ci benn benn bés la woon bu jeexee ñun ñëpp ñoo bokk senegal ñun ñëpp ñoo war a jàppante ànd ndax senegal may sant suñu administration ak sunu institution yi def nañu it wan nañu li ñu li ñu wane wanete nañu seen manin mooy organiser ay élection yu mucc ayib yoo xamante ni bu paree ñëpp dañuy jubi dex seen soxla ndax loolu mooy li nga xam ni moom la Sénégal xam ma leen di sant di leen gërëm di leen remercier ma ciy beral nag sant ak gërëm ak nuyoo ñii nga xam ne ñoo bokk langue politique bi maag ñoo ma ànd muy coalition benn Bokk Yaakaar muy alliance pour la république may sant kilifa yëpp di ci beral cant président Macky Sall bi nga xam ni moom moo jiite coalition bi te tànn bi jóge ci moom ba ñu mën a nekk fii tey taxaw di waxtaan yi yéen mooy sant it yéen jur taskati xabaar yi ndax li ci war def ngeen ko ñu jéggalu it ndax lu ñàkk yenn saay ci sunu digaale ngeen mën cee gis wala mën cee dégg loo xam ni mën na dëpp bañ a dëppook sunu jikko bu ci amee ñu leen di baalu àq di leen baal àq ñuy ñaan yàlla lii nga xam ni def nañ ko muy lu jig Sénégal yàlla nañu yàlla defal jàmm man leen di ñaanal yéen seen liggéey yàlla def ci barke je vous remercie